almadi ñu bari bo wootee nit ñi duñu ñëw mais nak ñun am nañu organisation bo xam dinañ fexé ba journée bi mom dinañ ko marqué bu baax parce que euh, on fait le maximum pour que liggéey bi dox wax deug yalla mais nak ñu ci bari amna quelques uns yu genn mais bari wul ñu bari génnuñu mais nak du té ñun ñu liggéey suñu liguey té on a vu que résultat yaa ngi ñëw parce que ben fan mëno ci liguey yëpp mu set mais da ngay def de fur et à mesure de organiser wud diko def le maximum possible donc bu yagge rek yëpp set ak sensibiliser nit ñi surtout jaaykat yi ci mbedd mi nga sensibiliser leen sensibiliser borom kër donc loolu boo ko rek war na dox te buñ gisee ne yaa ngi defar bu yàggee dinañ la fekk si ambassadeur Amérique dama ko invité personnellement man maa invité mu ñëw le préfet était là maire de Dakar était là le maire de Ngor était là sous-préfet était là loolu nak wax dëgg yalla sant yalla dañ koy def légui nak président de la république dañuy xaar mu ñew wuy si nak légui mom mo ci dess mu ñew gane ci ci gox bi ba xol li ñuy liggéey. comme tout début ça peut pas être facile mais malgré que début la gis nga yëf yi ni mu mel nit ñi quand même ak dole. te beau boo parcourir woon euh, kii bi quartier bi daa xam que nit ñi parce que fu nekk ñu ngi bale ñu ngi nettoyer bon comme nous, comme tout début c'est difficile mais les prochaines fois tu vous verrez que ça va être beaucoup plus réussi encore qu'aujourd'hui parce que sensibilisation bi doina ma def non vraiment je pense que prochaine fois si fi dellusee euh, fidèles,